asalaamualeykum bokki Sénégal ak bokk yi ñuy seetaan yépp ci àdduna bi ñu ngi leen di nuyu ci seen émission démb e, démb nag xam ngeen ni weesu na waaye ñun moom la ñuy indi fii di ko fàttaliku ndax fàttaliku sa démb dina tax nga xam ni ngay tëyee sa tey ak fi nga jëm ëllëg tey nag ñuy waxtaanee jàmbaar ju mag ju ñuy wax Alboury Ndiaye ba Jolof mi ngi juddu ci 1842 nekk jàmbaar joo xamante ni defe naa ni Euh, kenn fàttewu ko di mbokkum waa waalo di mbokkum waa jolof di mbokkum waa kajoor xam ngeen ni saaxee war Fatma moo tuub dem kokki jàngi ñu ni ko nag bi mu jàngee ba noppi ñu ni ko dangay jël doomi soxna ngir ñu mën laa ñeme mu jël yellaloo sey ba am ca amadu Yàlla ni ko yow doomu dëkk kër ngay am amadu Yàlla màgg dellu Jolof ñu jox ko Faatumata Nguy mu am ca bu Jóob bu ñu delloowaat ko Jolof jox ko Biram njéemé Kumba mu am ca Alburi bu mi nga xam ni buur bu mu dàqul dala gisul Alburi day ku gore la waaye nag buñ tuddee Alburi dañ tuddee nag fa mu soqi ko ci askan woowu nga xam ñoo sant Njaay te Njaay Njaay mi nga xam ni moo feeñ ci wàllaa dex nga xam ni ba mu feeñee danoo jaaxle lool takk fas yi ñëw fekk si di am may sa waali jon laaj ko ñun daal kënu gis daal nii la mel naa la mel ba nu waxee nam mel may sa jon boobu mooy buur siin mu geesu ñu leen ah layit njaajaan wax ngeen cu rëy rëy rëy layit njaajaan ci séeréer njaajaan mooy lu rëy rëy loolu daal la nit ñi bind ba del si ba indi turu njaajaan njaay njaajaan njaay moomu nag moom meññ Alburi ndax Alburi Euh, birim pindi ñebe bàyyi ma nga ca ngëdd ma ca ngene neen alburi jaxeer nag birim pend tabara lat sàmburug jëleen geet ba birim ñebe kumba buurub njaay ba bugaari biige sàngule birim kura kan tese daagu leen birim ñeme ya ba jëleen mbay layti layteeg cukkuli cukkuli njiglaan njiglaan sare sare njaajaan njaajaan njaay jolof mooy dëkk bi nga xam ne parce ndey ji réew ndey ji réew lañ ko ndax dëkk yëpp yu bari mën naa laa waxal ne euh, jolof lañ bokk. bu njëkk juróom benn province la amoon muy Bawol Kayor Siin Saalum Fuuta ak Waalo juróom benn province yooyu yëpp si jolof moo leen moomoon fu ne buur ba jolof teg fa kenn. ma leen xamal ne jolof googu ngay wax aussi a ah, dëkk la boo xam ne bi bu bari ay garab bari woon nay sump bari woon nay kàdd bari woon nay guy ak warak danga xam ne Birame Ndiémé Kumba moo indi gomme arabique maanaam Dakar de ci senegal ci ay tournée yu mu doon def ba muy dem Fuuta dugg Jolof Louga Remba ba la njëkk a dal am fa ay fan comme que dafa miin dex te foofu amul ndox mu jóge fa dikk ba njaayeen fuuta dikk ba njaayeen ci pegg dex gi mu sanc foofa tuddee dëkk ba tuddee dëkk ba njaayeen njaajaan njaay sare njaajaan njiglaan sare cukkuli njiglaan létti cukkuli jénn mbay létti ba ci birum yemeeneer jonaay ba birum yemeeneer jonaay ba ne suñ dëkk bii nga xam ne maam njaajaan a ko sancoon daal yàgg na duna war a wut beneen dëkk sancaat ko ñu daal di woo benn sërif mu dugg xulwa génn indi ñetti téere ne indi leen ma géléem gu ndaw ñu indi géléem gu ndaw mu ne benn téere bi nañ ko takk ci tànk bi benn téere bi nañ ko takk ci geen bi benn téere bi takk leen ko yarab sawat yarab sawat bu jant soyee ba timis ngeen caw ko bu jógee buum gi dana dog ngeen takk fas topp ko su ngeen ko toppee bu leen ko sonteel bu leen ko soñax bu ko def dara bàyyi leen ko rek muy dox ba fu mu tëdd ba fu tëdd rek foofu muy dëkk ba ñu daal di def noonu ba jënt sooy ñu caw ko yarab sooy mu jóg ñu topp ko di dox di dox di dox di dox ba fajar mu ñëw ci benn pëtë séng yu bari nii mu daal di eh, yës jël baat bi teg ko ci génn séng gu ndaw ñu ne ah gélém gi day mi ngi yës ci céng gi céng soosa moo waral turu céng moo ñaareel dëkku dëkku dëkku njaaj dëkku njaaji ñu daal gor sañ fi ko muy céng li ko daale ci biram yéeme kumba nag dafa jur Lat Samba Buri Jëleen Lat Samba Buri Jëleen jur bërëm jur bërëm penn tabara bërëm penn tabara jur jur at buri jaxeer at buri jaxeer jur bërëm penn fari matin ne mo dora ba ba bërëm penn fari matin ne mo jur bëkk koddu bigee bëkk koddu bigee jur bërëm penn yéema njote ak lan kon jote njote bërëm penn yéema njote moo jur at buri sayda ba at buri mooy ñaar fukki juróom benn Buurba Jolof mi ngi bokk ci néeg bu naan kër Biram Penda kër Biram Penda juróomi Buurba Jolof lañu amoon Alburi Tam Kumba moo njëkk nekk Buurba Jolof ci kër Biram Penda Alburi Paye Biram Alburi Paye Biram mu topp si kan Alburi Njaay mu topp ci Sambala ba Penda Njaate mu topp bun Alburi mu mujj mooy juróom yooyu la amoon Alburi Sayna bu nag bi nga xamee ne na ba toll ci ñetti yatam lañ xeex nga ne neen tal na Fatim Kuro Nguy ànd ak néeg bu du ñëbu ñu xeex ak kër bayam nga ne neen rey bayam ak geneen bayam ja nekkoon buur booba biram ba yaasin biram moo nekkoon buur ba jolof di magi biram pe nañ ba yote bay Alburi ñoom ñëpp ñu rey leen nga ne neen biñ leen reyee nga ne neen seeni bu boot ko bañ bëgg koo rey bañ bëgg bañ bëgg koo nangu rey ñu ne leen bàyyi leen ko kii daal li rëb jaan la jarul rey ñu bàyyi ko mu toll ci ñettee tam seeni bu jóob moom kër Amadou Yàlla la la bokk Amadou Yàlla bayam mu indi ko kër Amadou Yàlla foofu la Alburi yaroo Alburi li ko Lat Joor magee bariwul ñoo bokk yaru ñoo bokk yëpp Alburi Njaay nag bi mu amee fukki at ak benn la ñëw kajoor fa la yaroo Birima moo ko yar diggante mbul ak ngigis xeex bu Lat Joor xeex mook Alboury ñoo ko ànd ba 1875 bi muy dellu Jolof di jëli nguur la 1875 la Alboury su ko jóge waatee Kajoor pour ñëw Jolof 1875 fekk na am na benn ndomb bu ko Lat Joor bu mu am foofa la njëkk amee eh, ak ndomb ndax Lat Joor dafa ne ñi ngi waaj a xare Sambe te man monsieur Damara Maram Babu rek moo tax dégguma demee teej ku ma dajale moom boo ko reyee dinaa la fal barjaag Alboury jàpp naa Maysa ba ko Maysa déggee dafa ne kooku day ndegam ab laa wala it du falu kër bayam ndax man gon du ma sóorantu wante ba mu dajeeg Sambé moom Alburi Seynibu ak ba mu dajeeg moom Sambé ak Maysara maram maram Babu ba ñu xeexee Alburi moo gagné ndax Maysara dafa ko diit Alburi téye ja ngi war jaayre mu sëq jaayre jaayre tàkk Maysara becc loxoom ne ko fas wuy tàkk day du yàgg laata Alburi becc loxoom nag mu fetal Maysara mu fetal Maysara monsieur daanu ba ñu ñëwee ah ñu ne monsieur maram maram baabu daanu na ñu ne alburi ko rey ñu Lat Joor fan alburi barjaag fa la njëkk takkee ndoom ak barjaag alburi kayoor la yàggee fa la yaroo nekk fa nekk fa nekk fa wane boppam nag ci xare yu bëree bëri bëri ban ràññee ko ba takkal ko ndomba tànk mu naan chef de province boobu njàmbaaram moo ko ko mayoon. Albouri ku bëggoon Sénégal la ku bëggoon Afrique la mais 1881 ca Sugeer am na réunion bu ñu fa woote woon boo xam ne Lat Dior Ibra Fatim Sarr Omar Niane Abdoul Bokar bu Fouta ak Albouri Ndiaye ñoo fa doon réunir. keroog Alboury bi mu jëlee kàddu gi daf leen wax ni nañ boole suñuy doole te bàyyi xeex bi ñuy xeex ci suñ biir benn noonu la ñu am mooy tubaab bi ñun ñëpp ñu xeex ak moom sànniwaat ko ci géej gi ko fi indiwoon. dégg dëgg alburi njàmbaaram vraiment toll na foo xam ne fii foo ko takk fit ba passé na ko ndax moom bu daan dóor si xare am na ñu bëri buur yu bëri yoo xam ne daaw ñu fekk xare mais moom daan ñëw di jite xare bi. Ah, ba mu fa nekkee nag nekk naa Euh, Lat Joor xarala ñu bëri jaay de Sambe wursu naw duuru lépp naw paas koto pour lu lëga wàllu mbaal kër ma jaaw ngat fu nekk ànd na fa ak albur euh, albur xeex euh, ànd na fa Lat Joor ñu xeex am na xeex boo xam ne bii xeex na ko géeli muy xeex ak maam Boucar Boyda muy Ali Boudielka xeex naag moom xeex bu métti boo xam ne bu doy waar Boucar Boyda moom sax tagg na ko ci 1945 ci Louga bindal benn benn bataaxal boo xam ne di wane ne njàmbaar ak Alboury Ndiaye googu ba mu jógee foofu xeex na fu daan buudi ba mu jógee buudi xeex na aussi naw duur fa la walloo Sayer Mati Ba xeex nañ xeexab Samba Sadio boobu boobu nag ci la Alboury jógee na nag jëm Jolof fekk na booba jolof Amadou Sayxu moo moo moo ko notoon moo notoon buur ba fa nekkoon ñu di ko wax ba ka dem xëri jaloor ña fa nekkoon ñëpp ñu bari gàddaay booba fekk na ngis yéen gii ma dëkk ak ku ma ñëpp gàddaay nañ ñi ngi sàmba saani loolu moo tax sax biñ tëkkalee bi e, ndomb bari jàgg fekk ngis yéen a fa ak ku ma yéen ak mbamba ba ñu woyee alburi way woowu ñu woy Alboury ci la diggante mag sàmbala bi commencé naqari bi nga xamee ne nag xare nañ Samba Sadio ba noppi nag ah Alboury daal di wut si Jolof fekk ba amul sax bay na bay na bara yang-yang moom noonu xe moo doon xeesee Lat Joor ci Samba Sadio eh, bara la fa bay rakam ñëw xeex ak eh, Lat Joor Samba ñu rey ko Alboury dem Jolof nag ba mu demee Jolof mbëlëxa la jaar ba mu jaaree mbëlëxa ñu yónnee ci bara bara ndaw ne ko alburu nee na nga nuyusi ko mbaa mu nuyusi la yang-yang nag buur ba sant njaay rek lañ xam mu def ko commune rek fas wu dem rek weneen ñëw ne ko ñu ne kaa ah, moom kat nee na nga ñëw mbaamu mu daal di ñëw te moom mi nga ànd ak eh, xar kajoor ak xarab ak espace tubaab bi nee nga ñëw mbaa nga ñëw bara daal di dem bara dal di génn bañ réew ma dem Alboury ñëw placé jolo fal ko xare jàmme Njaay Alboury dafa ñëw ci xare bi ñuy xare di xare ak mbooloo mi lu mu bëree bëri bëri booba Kajoor ñëw na ay mbokkam ñëw na ñëpp ñëw nañ mais mu am ku naan jàmbar Mbaba Kéwu Njaay mi ngi tekkoon ci bopp bi benn bandu bu xonq mu di ko xool fekk mu def lu rëy loo xam ne lii ba mu xeex bi pare mu ne leen wa ana kan moo takkoon bandoo bu xonq bi ñu ne ko njaay kooku di jàmbur mbab kewe njaay la waaye nag moom fasam dafa de léegi mu ne leen léegi mu jël fasu ku naan ma faari malam demba moom la jox keroog jàmbur mbab kewe njaay moom la ñibbee mboy naan mu wane rek loolu rek wane na la si njàmbaar ak alburi bétalam yang yang nag alburi foofu la bara jame woon façon wu naan capitaine waaye bam mu ko jamee teewul moom tuub ju mu rek dàq woon na bara waaye foofu boo fekk dafa fekkoon ay jàmbaar ña ngi woon ñu mel ni Toubé Mbaba Nguy ñu mel ni Toubé Mbaba ñu mel ne Jamboor Mbaba Kewee amoon na ñeneen sax ñu mel ni ñoom laytu ummi laytu ñu mel ni laytu tam ñu naan ko lan kodd donc mu wan la rek ne la Alboury aussi lu mu doon jàmbar jàmbar am na ñoo xam ne ñu nekkoon si gannaaw aussi nekk jàmbar. ba mu faloo ba am ñetteet bara ànd ak goñtaara buri bett ko mooy mbettam yaa ngi fekk mu nga mboy naan ci jabaram ji ñuy wax jabaram ji ñuy jabaram jum takk mu jël baatam mbab ma jaate ba mu ko bettee ñu ñu war euh, capitaine yëgali ko ko ca tàkkusaan fi mu toog bi mu déggee eh, capitaine di daw dafa ne lool daw di jàmm furi kewe jee moo ko waroon mu ne ko furi kewe jee téel capitaine xanaa yaa ngi jàmm nekku fa mu ne ko jàmm nekku fa kay ca suba tey bara nga ub dëkk ba mu ne ko waaw bu bara ubbee dëkk ba ana ana ana ana jaraaf juree jëng mu ne ko manga fa mu ne ko ana tuubi mbaa bu nguy ko ma nga fa mu ne ko ana sula mu ko ma fa mu ne ko ana leen lay tam mu ne ko ma fa mu ne ko waaye booba dëkk seeni borom ma nga fa defal ndànk sama fas foofu nag mu daal dina jabar ji tànqal ma ndox ma sangu ñu tànqal ko ndox mu sangu ba noppi dugg ci néeg bi téerewu munta génn ñu mabbi bunt bi mu génn nag war capitaine bi jant yi waaja soo la dugg yang-yang ñun bara nekk ko nag fi mu xamoon ne fi lay jaar ndax fi la génnoon ñu fetalante fetalante fetalante ba la ba euh, bi capitaine euh, ci boppam di di euh, yàqu ñu jam albiri ci loxo fetal gi daanu mu bañ a dem nag bàyyi fetal gi yang-yang ku fab fetal gi rek ñu fetal la nga daanu ba ku ñuy wax alsaan moo ko mujj fab ñoo dem tànk bi mu sukk benn tànk bi jox albiri fetal gi ci kaw albiri ñëw fekk na mu jigéen ndaw ndey ji mi ngi taxaw ci bunt bi ak say na bu jóob ndey ji ñu ngi yore ab layu def ca fer gu xonq ak koraay ak ab jalam ak jaaru xaalis ñu ngi koy fayang di ko yëngu bu booy caa bi ñëwal sa dëkk bi tàng na biram booy caa bi ñëwal sa dëkk bi tàng na mun a daareet yaay def lu ngay def ni ñu ne ko ah yaay dëkk bi dafa tàng so mun a damaa wutool bu mu ñëwee mu sedd bi mu wàccee capitaine rek jam jam-jam yi ñu ko daan capitaine daal di daanu daal di dee mu daal di sol daal di carax tëkk nu ba dëgër dal di seen alburi penn mboyo ci biir tijaane mu ne ah kee day kee di mëlmëli de ku ko daane buntu feeñ ñu ne ko déet alburi penn mboyo mu ne baa kon ku ko fekk tam buntu feeñ mu dal di ñaaj am na ku ñuy wax seen i ndumbe caam ab tëgg la woon ku niroog alburi la woon bijante soo dafa daanu ñu ne bare ki daanu bi bijante soo day alburi boo demee itam alburi daanu la muy muy néeg loolu nag ba xam dëgg la bët set nag ñu ne at bëri baraa ngi jàmme jàmme ñaari yoon la ko mooy jàmme ku njëkk gi at bëri ñu ne ko baraa ngi jàmme te capitaine dee na <coughs> mu ne nañ ma seetal fas ma war ñu seet fas mu ko mën a war fas mu mën di ko wër di ko di ko wër di ko wër ba gis euh, wajanu biir samba bi mu ñu indi ko ne ko wajanu ñu dong moo la fi attan mu ne waaw jigéen ju baax moo gën góor gu bon fekk doomi bàyyeeg baxal ak ñëpp ku nekk ne ko Alburi toogal nu toogal nu dem fu nu fekk bara yót la bëgg wax loolu cënga war xoox wax loolu ngénki wax loolu ku dawal ak asamboolu dikk rek ne ko toogal fu nu fekk bara yót la bi mu ne yéen ñëpp bax ngeen dëgg wante nag mbojj boo bëggee xam ne saw jala tollu da ngay fekke mbees ma mu daal di war jigéen ji baax daal di fekk bara jàmm bara dem yoon woo bara bara eh, reyuñu ko gannaaw ga la delsi ànd ak néeg buri ñëbu xeexaat ak ñu rey ko moo ngi àndatoon ñu bari ñu ci bari gillee sàmm la benn foofu mu la wax fi la tàmbalee moog alburi ñuy werante am na itam beneen werante bu ñu mës a werante ndax semblable dafa doonoon ko am doole ko am taxawaay te Alboury dafa doonoon ko sew wante benn yax la mu daan topp nag léeg-léeg ci gone yi di leen noggatu daal ba bés mu jàppanteeg Alboury bi mu jàppanteeg Alboury nag Alboury téye ko ci loxo tiko bi mu ko téyee mu bëgg faa jóg mënu faa jóg mu futtali ko ñuy ànd nag ñoom ñaar di maam sakkar yi di maam ñag yi di daanu ci néegi yi ba Lat dikk dox seen diggante ne bàyyi ko mu bàyyi ko fi mu ko téye woon foofu mu ne ko baax na mu ne ko baax na loola it bokk na ci leen boole. xare na aussi gile gile xam nga kii mi ngi koy wax Boucar booy dem mi ngi koy wax ne nee na doon may sa tabar mu doon gaynde gayndalu wan na ko loo xam ne kenn mësu ko gis. ba ñuy ñëw gile albure nga ba ñuy ñëw albure ngi sagata. bi ñu ñëw gile albiré ngi sagata waaye dafa fekk Omar ñaan Omar ñaan ko de Binta ak maa Kondel Diop doon taxawal seeni fas ci kër Amadou yàlla ba fa dameel jaaree ca guddi ay garaw jàdd dafa di ñaan ndox ñu leen a ah, yéen guddi ngeen di ngeen jëm ñu ne dameel nga jëm Jolof ca Alburi fekk ñi tëdd ci waa kër Alburi lañ ah ñoo ngi tëdd na pat ba garo yooyu dem ñu daal di takk suba teel ñu ak Alboury ci sagata ne ko loo gaagoo demel demel njëkk la yangeen mu ne nga ne ñu ne waaw mu ne ah taxam loolu de daanaa ko dégg waaye gëmu ko ñu ne ko ah, loo gaagoo de demel njëkk la yangeen mu daal ne eh, fara baxal leen ndënd mi ñu daal di yóbbu ndënd mi ci santaara bi daal di ko jiin jiin jiin ñëpp daje ñu tekk leen waaye nag demel day maa ngi moom ndagam noo bokk noo bokk mboo njaag te man fekkuma ko ci suuf nga noo sobal sa moo fekk ci suuf si benn tabar si maa moom yàlla na yàlla àtte mu daal di xëy fàttil euh, xattir bi ku jëm noodi bay jub noodi campé daal di ne nañ ko nañ ko yëree damel li ñuy wax ak yër ñu daal di tànn sama bay mbuldi ak Omar Ñaan Codé Binta ak Demba Fall ak Sangulaawa Sow Sangulaawa Sow maar ñooñu ñoo takk seeni fas dem di seet demel ba xam fu mu nekk bañ ko tiimee ci xur wi ngi fekk ñuy jiin ci biir xur wi di di birum birum birum subaan ndambal subaan ak ndambal ñuy jiin ñooñu fetal leen pour pour wan ne gis nañ leen ñu daal di rajo rek fetal leen ki ñuy wax sàngalaaw so moom fasam dugg ci kaniwel ñu fekk ko fa moo njëkk a dee ci gile mbul déeg mu ñaan ko de binte ak Demba Fall ñëw al bu ne dégg naa seen soxi ah waaw dégg naa dégg naa soxi kajoor yi mel ne ko kii nag daal di daal di takk leen takk leen takk ñi daal di takk fi ñu préparé di defar rek appel fekk ñëw na ko kii demet jaar na mband ci xuru mband bi romb na la jaar nañ ci xuru mband bi ñu daal di wàññeeku wut si xuru mband bi dikk ba mboy naan ñu ne ko demet jaarna fi façon yi naan nañ fii ci bonde mu ne fas demet yi naan nañ bonde mu ne waaw naan nañ bonde de mu ne ah kon de lii mu wóor defe na yaa ngi jëm demel dem ba lexi at bi dikk yaa ngi ñu ne ko demel ñëw ñu mbënd fekk na fa jafaram ji ñuy wax loolu loru loru jilaan fay bi mu ko defee alburi nag ne jolof dama bëggoon comme que sonn ngeen léegi nañu toog ngeen fanaana fo bu subaa ma jàkkaarloog demal balaa ngoon a jot mu xam lu ma mënee ma xam lu ma mënee ci nga war ko ne ko ah xanaa yaay fanaan ak moom demel waaye ñun duñ fanaan ak Demba War Sall ci ci Jolof bi mu ko defee Alburi nag ne leen génn Biram Penn mu ñàkk buuna kon balaa jënd so danan danaa danaa danaa dajeeg demel nu dubbante paaka booba nag la wàcc jaan daal di war bu dee jotee ñu dal di wuti mbalaxe bañ jamee ba jàkkaarloog demel mu ne rakk yi féete leen ma nee ci xur wa taxaw bu ma leen woowut bu ñëw bu leen ñëw ne saa bapp maar ak waa penku jolof na ngeen njëkk suub na ngeen njëkk suub xale bi ne cee ngay war xoox yéen a ngi ma dar te lu mu yàgg-yàgg bu leen fetal soxi baadalo kuy fetal na nga xam fooy fetal foofu nag lañ euh, la la la kii bi tàmbalee bay mbul di tëgg korte dañuy am korte dañuy am korte foofu la ko la ko la ko fëri kitang bëj bëj gël fëri kitang euh, romboo jaabal ne ko biram booy càbbee ndunu yaa ngi wax ak ndey biram booy càbbee ndunu yaa ngi wax ak ndey mu ne ko ah, bay eh, fëri kitang yow yow sore ngaa ñi lay aw di mu ne ko waawaaw day njaay man tey laay gëj dégg takkal tànnoor takkal duma ñibbi te nam waxoon na la ko defee fa la ci la ci la dee xeex xeex bu métti rakk yitam itam naka ñu toog toog ba xam ne bu buñ toogee te demuñu alburi dana sottal xare bi ñu daal di koy àkk si ñu daal di àkk alburi nag mu jàkkaloog damel nag nag bañoon naa dem sax dafa siisu woon façon bi ñuy wax kayit dafa dañ ko doon teg muy bañ di dañ ko doon teg muy bañ na du dem maa ko ndeel jom ne ne ko ne alburi yow de kii li muy sa mbokk tax bay woon nu rey ko noonu mën nañ koo rey a ne déedéet fekk si na ma dàq naa ko ma dem moo gën gënal fekk si na rey naa ko ndax ko dee kenn mënul Alboury amoon na tata dafa amoon tata joo xam ne ji tata ji liñ ko tabaxee ndariti ndariti eh, ay ay ay bëy ndariti xar bëy ak ban bu tooy ak ak ak xeer moom lañ daan jaxase kooku boo ko fetalee bal bal du ko dugg bal du ko dugg mu mu euh, moom lañ ko defoon tata ba mu daj mu nekk ci biir néega boppam bi daf ci amoon bunt boo xam ne fetal xaj na mu nekk ci biir amoon na jàkk moom ci boppam daana nodd moom Alboury lim amee woon itam ci jabar ma jigéen ndaw moo jur buna gan siri moo siidi tuccala moo jur roqiya loolu njaay moo jur birayum ñooñu la ci jabar am na yeneen jabar yoo xam ne yi amuñu yu bëri bi nga xamee ne nag Eh, bëgg naa dem dañoo bind boroom daal lettre boo xam ne bii lettre anonyme la ndax bëggoon nañ daal lu ñu xam ne ko daal réew yépp am nañ seen bopp nun jolof amaguñ suñu bopp Alboury sonal nañu danoo bëgg nga wax kañ ngay ñëw borom dar tuddee leetar ba jàmbari jolof ne jàmbari jolof ak bind borom dar tontu leen ne leen bis buñ tabaskee bu ci ëllëg saa sama fas bi dana taxaw yang-yang boobu nag la al bi di préparé ñu rey ñu rey bëy bu ñu reyee bay dindi der bi dindi der bi daal di koy sol ndox takk buñ fabee géléem sol ko ndox ba mu fees ba mu fees ñu ñu teg fee géléem guy dund parce que ñu ngi par para dem daal di daal di commencé dem nag man mi sama bay ba ñu gontee yang-yang ba bay jub ngi jéeri moo ma nettali moom ci boppam mu ne ko giral mu ne ko njaay mu ne ko waññeekul demal ki sa bay mag la sama bay ne loolu moo ko waññi waaye booba kenn ñu wut a waññeeku dëkk bu bañ a demit dañu daana gëlëm ci sa sa teen ba dootu dootoo naan bi mu ñëwee Linguère nag weesu ko dikk dikk eh, campé fekk na tubaab yi yi koy dab fekk ñëw nañ Linguère fekk Alboury ngi juri wante ànd nañoo ñoo xam ne ñii xam nañ Alboury ñu ne tubaab bi boo duggee ci Alboury ci ci garab bii dana jeexal sa soldaar yëpp kon nag sooy boo bay ko fii mu jëm amul ndox xëy na dana wàññeeku noonu la Alboury jàllee jëm Kayadi jëm Moot Ngel Moot Ngel Moot Ngel nag la tàggoog Alboury Penda Mboyo ak waa Jolof ndax Alboury Penda Mboyo dafa waxtaan ak waa Jolof Jolof na ko soo waññee ko dana la topp ndax lii bu demee Jolof dana yàqu hmm, kenn du fa des ay mag rek presque gone soo waññee ko dana la topp Alboury Penda xëy nuyu ko ko njaay mu ne ko njaay mu ne ko dama bëggoon na ndax e, jolof lépp a ngi nii buñ demee dafay móob ndax ay mag rek ba des ak gone te bon sa doom du am lu mu yërif keroog ëllëg sama doom du ko am nan wàññeeku buñ demee dafa nekk tubaab bi nu mu def noonu mu ne ko ah njaay sóob nañ la de da nga wàññeeku waaye du la njariñ du la jëriñ dara doo doo de da nga wàññeeku waaye doo falu neexul neexul waaye Samba Laobé Penda mais sol rek danga fekk mu fal ndax Samba Laobé kat mas na maa defal loo xam ne lii fokk yàlla fay ko ko guddi muy taw ma wàcc mu téye son mu dugg ci néeg fàtte mu fanaan ba bët set ma yeewu dikk fekk mu ma ne ko Samba lii nag mu ne ah da ne téyel ma kon nag dama koy téye mu yàlla fay lam waxaw nit dëgg la ba alburu penda booy dikkat fekk na tubaab bi fan Samba Laobé ko ba moo leen gàttandu Albouri jaaree nag dem ba ba ni mu gaañu 1902 defe naa 1902. Albouri bi ko tubaab yi gagné le 25 mai 1890 nag ci la jóg nag di wéy wuti sow booba ma nga jëmoon ci Amadou Cheikhou jëmoo it ci Samori Touré bu Wasadu. Thiéba Traoré bu Sikasso pour ñu boole seeni doole xeex ak tubaab bi mu doon jullit bu wér di jàmbaar ju amoon fit Alburi nag ma nga daanu kala kala ñu denc ko Dosso ak fitt moo ko rey ab aat moo ko jam ñu suul ko Dosso da dañ ko fet dañ ko fett dañ na ab aata ko fett xale lu góor bu jongut moo ko fett moo ko fett fett ga moo moo ko rey. xam nga bi muy gaañu sax dañ ne benn at moo ko rey at mooy koo xam ne kii dugul néegu góor moo ko jam rey ko foofu la Alboury ci dooso. Samba Laobé moom ñu fal. Mhm. bi bi mu fa jógee doomam ko remplacé doomi Alboury ko remplacé Bouna Bouna day ci la buur ba Jolof mujjee ndax tubaab bee ko fa waaye buur ba Jolof la ndax moom fekk fa commandant fekk fa commissaire fekk fa dara moo fa indi yëpp nag moo fa indi ay école moo fa indi ay raay bile mu fa indi ay teen yu bari moo fa indi lépp moo ko fi indi daal moom Bouna ko fi indi moo fa soldaar ay elaw yëpp bu na ko indi kon bokki senegal gis ngeen seen émission démb ci alburi xam ngeen ni moom dowul jàmbaar moo tax mu dee ji ba doosoo e, nekkoon koo xamante ni wax dëgg yàlla def na loo xamante ni mënee su koo weesu mooy jox sa deret sa réew moom patriote bu mag la woon bëggoon réew mi bëgg Afrique ba gis ngeen fi mu dee ji ca Niger ñu leen di sant nag ci teewlu bi ngeen teewlu woon seen émission démb ñuy gërëm aussi ñoo xam ni dañuy encourager ci émission démb ku demee ni Cheikh Ba ak maam ay Cheikh Fall soxnaam ñu ngi leen di gërëm ci encouragement yi ndax ñoom it ñu fonk seen cosaan lañu ñu ngi santit euh, Soxna njaay mi nga xam ni madame kan moom maamam lañ doon waxtaane tey moo góor a Ndiaye muy émission boo xam ne ñoom dañu ko bëgg ndax cosaan wax dëgg yàlla wala yi dañuy wax ni boo demee ba xamatoo foo jëm da ngay dellu fa nga jóge woon ñi ni encouragé di ñu ñaanal ñu nit ñu ngi leen di delloo ñaan gi te di leen xamal ni bu soobee yàlla lépp loo xamante ni xam nañ ko ci réew mi dinañ ko booleeg ñeneen yi lu ñu xam indil leen ko ci seen émission démb ki leen ko doon présenté nag di seen xarit El Hadj Tall Ngol Ngol ñu di leen jox daje incha allahu fii fukki fan ak juróom bu neexee yàlla fii ci 2STV.